waaw kuréel gi de mooy daayira xidmatu xaddim bi lekkalee mboole mitaale gi tubaa yëpp ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko tudde woon tur mooy mitaal yi nga xamante ni ñoo féete fii ci Touba mooy ñuy liggéey mitaal fer ak aluminium ak inox ñoo ñoo ñoo booloo àndandoo fas yéene liggéey sëriñ bi ci dëkk bi ci la taxawale kuréel googu dem Porokhane siyaare ji sëñ bi mu jox leen tur woowu noonu la kuréel gi taxawee. Euh, dañuy ay ndaw juddoo ci dëkk bi yoroo fi jàng fi métier suñ borom dogal ñu man fi métier amee fi tranga am lu war suñ diggante ak sëriñ bi te ñu gis ne mag ñi baaxoo nekk ci dëkk yëpp dañu amoon benn bëgg-bëgg mooy mel na ñoom ndax dañoo amoon yenee fekkee gasum raay bi ak liggéey jumaa ji te fekkee wuñ ko biñ dee ba nga xam ne dem ba suñu métier mokk nag ñu natt suñ bopp xam ne war nañoo am pas-pasu liggéey sëriñ Tuubaa naka lañ koy naka lañ koy liggéeyee nag ñu ne kon ñun métier mi nga xam moom lañu suñu borom séddee yo ñu ciy tedd di ci yor suñu njaboot di ci jariñoo di ci jox addi sëriñ bi kon nag war nañoo jëlaat kooru métier boobu delloo ci sëñ bi njukkal loolu moo tax ñu am yëg-yëg boobu nag ba dajale mbooloo mi parce que ni am fu ñu féete sëriñ bi ci dëkk bi loo xam ne war na diggante taalibe ak sëriñam loolu mooy pas-pas bi ak loolu mooy yëg-yëg bi amoon ci sëriñ ba loolu am waa tàmbali bi nag ñu ngi ko tàmbali ci première pas yi njëkk dox boobu kuréel bi taxaw dañoo fas yéene lu entretien kër Serigne Touba ndax gis nañ ne kër Serigne Touba at mu ne day laaj entretien yoo xam ne nii muy cellule yàqu yi ak verre yu toj ak porte yu am problème yi màggal ji lañ daan xool xool yabal fa benn ouvrier mu liggéey ko wala ñu xool kenn ci mbokki taalib yoo xam ne dëkku ci dëkk bi mu ñëw xool ko liggéey ko di dem ba gis nag gan yooyu ganu Serigne bi la te kenn ku nekk màggal Touba bu dikkee da ngay defar sa kër ba mel ni war a mel kii waajal sa kër nag ki tax nga am kër war nga ko defar këram bala ngaa defar sa kër tax nag ñu amoon parce que màggal gi dikkee ñu entretien que sëriñ ba mel ni war a mel premier départ bi foofu lañ ko njëkk a xalaatee waaye nag ci biir loolu avant ñuy tàmbali que sëriñ bi dañoo njëkk suñu xel xalaat ci jumaay sëriñ Tuubaa ji mu mel ni ki port yi nga xam ne sëriñ Abdoulaye moo ko defoon ndax ku ne xam ne ne porte yi muy porte entrée yi dafa am poids ñu koy tëj dañoo amoon jafe-jafe suñu koy tëj ñett ak ñeent ñoo koy yëkkati mu doon loo xam ne mënut a continuer ci dundu doomu aadama ci la def ay démarches foofu dem fa laaj ndigal ci sëriñ bi mu jox ñu ko biñ ñu ko joxee nag ci la daal di fas yéenee euh, convoqué mbooloo mi yendu fa euh, wàcce porte yëpp defaraat ko ba xam ne kenn nit képp bu ko laalee mu boobu mu dellu mel ni meloon ci biir loolu it damaa nañ amaa nañ ay yeneen activité yu defaat ci biir fu ci mel ne daari kaamil ji ne ci biir ak fi nga xam ne moom la euh, sëriñ bi jàngalee ci kaw xam-xam amoon na ay porte yoo xam dafa manqué woon ak yenn gri yoo xam amu foon ñu xidmatu xadim it moo ko taxawal defaraat ko ci liggéey bi nga xamante ni bokk na ci li njëkk def ci wàll woowu bi fa jógee nag tàmbante ak màggal Touba ñëw bi màggal Touba ñëwet nag ñu jaayantewaat nag dugg ko sëriñ bi soññaat mbokki taalibe yi defaat benn euh, mbooloo moo xam ne ni dañoo dugg ci kër sëriñ tubaa gi recensé lépp lu fi nekk ci wàll lu yàqu muy appartement bu ne dañu fay dugg vérifié ko xool la fa yàqu ñu bind ko xool verre bu toj baak sell bu yàqu ba lépp ñu xool ko biñ ko calculé xam nu mu toll ñu woote réunion waxtaan ci suñ biir xamal leen ne kat am na liggéey boo xamante ni mi ngi ci kër sëriñ bi te daayira xidmatu xadim moom la fay xaar ci leen defee bési bi te euh, tasaare ko ci mboole membre yi nga xamante ñooy membre liggéey bi ñu xam som bi mu toll ñu jël ko financé ko ci ba pare def ko addi sëriñ bi loolu xidmatu xadim bokk la ci jéego yi mu njëkk a def bi ñu jógee foofu it nag ñu xalaat ne murit du wàcc te it lépp lu sëriñ bi moom jàpp na ne ñun ñoo ci war a jiitu ci entretien bi ci lañu xalaat ne ginnaaw entretien pare na kon nañ jaajuwaat fas yéene takkuwaat nag jëbaat ci yeneen liggéey muy fu mel ni ki buntu bàqee ndax ku ne xam ne ne buntu bàqee ku ne gisal ni meloon fi mu nekk fi buntu bi fi mu tolloon jamono weesu na foofu mu doon buntu boo xam ne nii ah, mën nañ ne meloon na melokaan woo xam ne nii ah dëgg la ci ab murid di métallique romb ko di ko xool ba ñu xoolee na xam ne que buntu bi laaj na yeesalaat ci lañ dem ci baaxum mi nga xamante ni moo yor liggéey boobu laaj ko ci digal mu xamal nañu kat lii nag dinañ ci waxtaan ñi nga xam ne moom lañ ci war waxtaanal yàlla dogal mu am ci digal wooñu nañu kon am ngeen ci digalu sëriñ bi man ngeen ko tàmbali foofu it niñ ko defee mooy dañoo ñëw xool porte bi li ko war a liggéey ñu xayma ko ci xaalis ni mu toll ñu woote assemblée général waxtaan ak mbooloo mi xam ne leen digal jugaan na ci mi ngi suñu kanam ci somme boobu moom la ñuy calculer kenn ku nekk ñu xam la nga war a joxe biñ ko jaayantee mu ab lim ñu defar ci liggéey buntu baaxee bi gis nañ ko defaree ñoo ko defar peinture ko karo ko ba nga xamante amaatul leneen lu fa doomu aadama def kon loolu bokk na ci suñu activité biñ fa jógee nag ñu xam ne ah, ah, gisal nañ beneen bunt muy fu mel ni ki daari kaamil muy fii ñu taxaw tey mu doon barab boo xamante ni bokk na ci denc mag ñi comme ni ko suñu saa waxee ci la ñu xalaat ne daari kaamil gis nañ ne fenêtre fi nekkoon ku la xam ne ne fenêtre yi fi nekkoon 87 ba léegi yàgg na âgé fidateur yi fa nekk moom mi ngi ak jamono ñu ne kon ñun kat suñu liggéey war naa jëm daari kaamil li doon yëngu-yëngu yi dëgg-dëgg nag bi ñu dikkee dañu gisoon ne dañ koy def entretien mooy weeri toj ñu changé ko nettoyé waat ko seet bu looy am problème ñu dindi ko mais bi ñu dikkee immédiatement ci murid ak seenu xir ak bëgg sëriñ bi ak xam fi jamono toll ñu xam ne nag ko méngoowut ak fii jamono toll ci lañ jaajuwaat ne gis nañ ne am nañu digle entretien waaye ni ko sëñ maam Thierno waxee ci leeral bi mooy la ñu fas yéene nag soppi fenêtre yi bañ ko xoolee nag lii kat ab lim la waaye Serigne Touba ëpp na loolu mu toll ci 86 fenêtre kon 86 fenêtre ku la xam ne ab lim la waaye nag sëriñ bi ëpp na loolu. ci la ñu jaajowaat nag wootewaat assemblée générale xamal leen ne kat daare kaamil jot nañ digal ci Serigne bi ngir ñu war koo defar bi loolu amee nag ci lañ ko séddale ci murid di kenn ku ne am loo warloo ak Serigne bi joxe ko. ci lañ tàmbali liggéey mën na liggéey bi lépp liñ ko liggéey ak liñ ko laaj boo xoolee moto sa mois te ku la xam ne ay millions la waaye nag sëriñ bi ci boppam moo ko def ci ñun ndax moo waajal suñuy patron ñoom ñu waajal ñu bañ mën a am loo xamante mën nañ ko liggéey sëriñ bi waaye nag li ci gën a neexati mooy ci liggéey bi mooy dañ ko ànd ak suñuy kilifa yi nga xamante ni ñoo ñu jàngal métier def ci ñun xam-xam bi def ci ñun am-am bi ba lii mën a am kon nag njàmbaare googu ak jom jooju moo dugg xoli murid rawatina rawatina ñii xidmatul xadim bañ mën a liggéey sëriñ bi toll nii kon daal lii mooy li xamante ni mooy suñu activité yi njëkk